alhamdulilah bisimilah yàlla na lépp lakk yàlla na lépp yàq yàlla na gën a baax. sonal ñu rek. faslun lii day teqale ay wax mooy wax ji jàll ak wax ji ñu dëgmal bokkuñu faslun muy nekk ci arab néeg moom ak morom ja naam ñuur waaw yegis dagan na ixraaju dahabi génne wurus anil waraqi ci xaalis xob wa waraqi waaye yegis dagan na ixraajul waraqi génne xaalis xob anil dahabi ci wurus mooy yow ay or nga am nga continué ñu nekk cinq cent mille dinars nga xool cinq cent mille dinars valeur am ñaata la ci xaalis nga génne xaalis bi jox ko ay nit ndax bëri na ñoo xamante ni or la lañu sama rek xaalis moom bi dem waaw léegi nag bu fekkente ni aussi yow xaalis nga yor xaalis nga am ci ba compte bancaire bu nekk trois cent milliards nga war a génne asaka bëri na de trois cent millions milliards daa bëri trop trois cent millions nga war a génne asaka mu ne bu la neexee valeur bi nga ginnaaw bi nga xamee ñaata nga war a génne asaka loolu nga si génne ko en or noonu dagan na mais am nañu bëri xaalis keroog am na ku ñu wax ku génne asaka sept milliards sept milliards nit génne asaka asaka ci ñu génne sept milliards Yérim Sow doomu doomu Alioune Sow sept milliards Yérim Sow waaw doomu Alioune Sow bu sey doom
donc mu génne nii sept milliards affaire benn waaye sama benn xarit la kuy liggéey ko bon dafa liggéey ak ñoom quoi côté yooyu moom ko wax.
kooku ñaata war a am xaalis.
diggante ko xam kay daan giijal rek dara la lool tabarakallah ku mu ko jox ah xool ma ko de ka bëri na daal nee na wata jibu war na niyatu zakat niyatu zakati yéene azaka wa tafriqatuha ak teqale ka bil mawdii ci bërëb ba allazi ba nga xam ne wajabat war na fii te moom waaji jël na azakaam ñëw rek xot ñee zakat bi an yan waa anna lazi ataahu zakat maalahu fa in ukriha ala ixrajiha aw jaahu mayatun muti li ka si waa tajidu sarqatun qadran zakat min maalin shaa wata ji war war na niyetu zakat yéene azaka lu important la mooy am naa sama alal maa ngi war a génne sept milliards azaka waaye mu jël sept milliards mu jël benn milliard mayel ko jël beneen milliard waaw kay ma ñëw ma ñëw ma xëy si fekk ñu sàcc ci exemple la fekk ñu sàcc ci 3 milliards 3 milliards yooyu dem même su fekkente ne damaa dajale woon asaka ji teg mais lii mooy asaka ji même su ma ko beroon sax ñu fekk ñu sàcc ci 3 milliards 3 milliards yooyu noonu du asaka de ndax li ko fi jëlee du du du du jaraaf bi ko jël du man maa ne am gén yéene wuma ci génne asaka yéene ji àndul ak àndul ak nekkul xam nga dañ kaa sàcc waaw damay damay lu ko remplacé yi ci alal yi nag koy joxe xam nga
mais nag bu boobaa ci maanaam li des ci loolu ngay génn asaka bi non dañu non da ngay da ngay da ngay da ngay xam nga xam nga instant kii rek chiffre ngay génne liñ sàcc ci alal dem na li ñu des nga daal di ne léegi amatuma neuf cent vingt cinq milliards neuf cent vingt deux milliards la am ndax fas nañu trois milliards mu dem neuf cent vingt deux milliards ñaata si war ma calculé ko daal di génne loolu léegi mooy mooy mooy mooy li fi jëlee ak affaire yi daal li ko fi jëlee mooy na nekk dama yéene naa génne àll xam nga même fekkente ne ni seen borom ñu ñëw jël ko sax ñu ñëw ki ko ki ko sàcc ki ko jël ba ko ko aajowoo la sax affaire yooyu mais déedéet da ngaa war a yéene génne àll yéene ci lu important la fi war a wata jibu la wax dana ba liyatu zakat yéene àll waaye wa tafriqatuha teq teqale ko teqale ko biir mawdi yaay allazi wajaba fii wajabat fii loolu aayul tafriqatuha wal maali mawdi al milki wal maali alal ji naa ko moom ay ay nag la ay nag yu bari mais Belgique laa ko am Belgique laa ko am léegi ay waay noonu laa ko mën a expliqué man bëgguma mu nduroo ak masal bi suuf explication bi exemple bi nga jël léegi نجعله يدل فيه وهو موضع الملك والمال موضوع موضع المالك والمال waaw loolu garaaw dina ma ci génne maa ngi dëkk fii di dund fii ak ay nit sama alal nekk Belgique mu ne nag léegi dagan na dagan na alal jàng si alal jàng si ak man alal jàng si ak man léegi dagan na ma jël ko yóbbu ko jox ko ñoo xamante ni Belgique lañ nekk nee na forcé wuñ ma fi ma dëkk ma jox avec yi ñu ma dëkkal forcé wuñ ma loolu léegi xoolal lu tax ma ne bu bu ma mun doo ak bi ak bi ak ak ak bi stop parce que walaa gis daga nu naqaluhaa toxal ko an hu wëris boobu bërëb booba avec fi mu nekk illaa yakuna ndare bu dafa nekk mawdi'un loolu dafa am bu la neexee loolu dafa nekk mawdi'un bërëb aaxara beneen bi fi moom fuqaraa bi nekk na ci fuqaraa aw ay ñu ñàkk achet bi ñoo xam ne ñoo gën a tar iadaaman ak ñàkk waaye bul kat bul jël azaka bi fi nga nekk supposons tool la dëkk yi nga dëkkal am nañu ñàkk nga bàyyi si ñàkk ñi di ko jox ñeneen ñi ñàkk lu dul ne ñooñu nga ko yóbbu dañ ko gën a aajowoo lool lool lool mais bu ko ñeneen gën a aajowoo waa dëkk sàngam ñoo gën a ñàkk dëkk bi parce que dëkk bi am na ñett tool te ñaar ñi danañ joxe seen affaire fii lañ koy fii lañ ko joxe seen paas lañ ko joxe fii lañ ko joxe bërëb dëkk sàngam amul tool ñoom dañ tawalewul affaire yi ñu yóbbu ko ne loolu moom dafa war a nekk si te sax moo gën fa innahu kooku waaw yoxtaa day joxe min naa si moom fi mawdi al wujubi ci bërëb bi nga xamante ni nii fa la waree fa demee ni amul bu fekkee bu fekkee am na feneen bu gën a ñàkk ñu yóbbu fa bu dee amul nag mu bàyyi ko fii wayun xalu dana toxal ak tarwaa li ci gën a bëri li yaa daam pour nit ngir problème ñàkk rek na ñàkk rek rek rek rek war a waral loolu bul ne bu bul xool leneen lu dul gën a ñàkk gën a ajowoo loolu laa fi dégg faslun beneen faslun wax ji jaar ak jir ñëw bokkuñu ida azala zakatu inda alxawli fa baat lam yadman lam yadman fa baat lam yadman ida azala azala saa bi xaw nañu firi waaye waaye ndem ndem yemb nag waa ndem ndem ndem alal yi nekk na fi ba xam nga mi ngi fi existé na mënees na kaa jàpp alal am na indal xawli fas fas at mi fas fas at mi am nga possibilité daje xam sa alal xam ko xamul nu toll yooyu noonu mais ay nag la xam nga leen ginnaaw bu mu amee at wala alal yi nekk banque la yëpp xam nga mu toll wala bu dee mbay la tamit bay nga ba eggal génn teqale nga dugub bi ak mbool yi yooyu dajale nga ko ba mu def nga ko ay saako ba mu xam nga bisu bëri wala pare na mi ngi ne waaye fa daawaat mu daal di sànku dem nga kër ga jël fas yi pour ñëw yab dugub bi yóbbu lakk jaaral la ginnaaw wala sa alal ji xaalis sa sàcc nañ ko wala biig li nag yi reeree woon moo leen rey ñun ñëpp ñu dee fa daaraat la wax alal ji daal di sànku naan lam yadma du du du du du du kii waratu la nooy def dara yow fi mu ne laa dañ laa war a jox azaka am na ñu demee ñu war laa jox azaka na nga dundal suñu njaboot lam yadma duñ la ko du du war waa ji du warlu lam yadma du warlu duñ ko ne ah yii lijjanti ko du warlu waaye wa in azalaha indal xawli la wax indal xawli fas ak jamono ji nga xamante ni ci nga war a génne asaka rek ci la yàqu waaye wa in azalaha su fekkente ne ni dakaa dajale dakaa dajale da ko génne waaye loolu baadal xawli la gannaaw at bi nga mooy problème ñu waxoon sànq démb xawlan kaamilam na ma su ma tee at na nga génne ci bis bi ma ne le cinq la woon août daaw le cinq août ren bu jotee génneel asaka bu ko génnee démb ndax bu ko génnee démb matul am na peut-être benn dërëm boo xamante ne naroon na si yokk diggante tay ak démb muy bénéfice boo ko bàyyee ba suba yaa téye nga alal jàmbur de un jour ñëpp daga ma lii nag comme tey jii mooy le cinq nga dajale alal ji ñu sàcc ko tey le cinq doo doo fay waaye boo bàyyee ba mu passé le six mu door yàqu waaw kooku damina baax dal xaw li ginnaaw am damina te mooy gis fii sax wa in yow man bi ay yaamin la wax bi ay yaamin ci ay fan quelques jours quoi ñu ngi def dèjà waxul ak semaine waxul mois bi ay yaamin la wax donc ay fan te ay yaamin te ay yaamin un la commencé un jour damina yaa naa say xoy daanoo tia min gayri mu dini ñaan damu fokkum bi asubhana min jahannam da tum baqara biha بعد أن دعا عنده إن عدل بعدها وجبت عليه هذا يقول لك ودعا لا لا ودعا إذ عند الحول لا قبل ودعا المال يرميه وإن عزلها léegi su ko dajalee baatu asala bi summa baa topp sànku nag léegi nee na asluha saanu alal bi qabla ixraajiha la njëkk mu koy génne cosaan alal bi moo moo yàqu xam nga cosaan alal moo dee cosaanu alal bi waaw comme bu amoon tool waaw tool baa yàqu alal ji moo yàquwul mais tool bi moo yàqu bon bëgguma dégg loolu beneen lan kii li ma xamal tamit boutique par exemple boutique wala lu gën a simple mooy xaalis bu déposé banque trois cent cinquante mille nga déposé di ci liggéey léegi xam nga bi ci nga déposé le cinq août daaw diggante bi yaa ngi ci liggéey yaa ngi ci liggéey yaa ngi ko sept cent mille ba doublé wu na ba doublé wu na yokk na trois cent cinquante mille nag yi nga dénkaane woon njëkk moom moo yàqu moom moo réer waaw léegi mu def wala xar yi soixante douze xar yi nga amoon léegi mu nekk cent soixante douze xar soixante douze mille ñu yàqu na dee ak lu maa yi bon boo nee tool tool ak li nga joxe kii bokkuñu quoi ak tool ak lu maa mais dama bëggoon xam wax ne li li nga xam ne li nga xam ne moom mooy jur waaleykum salaam waaw waaw yéen a Sidi coono de waaw xam ne dama génnoon kañ naka coono yi soo bi alhamdulilah jàmm alhamdulilah incha allah jërëjëf
fa innahu kooku yadfa'uha da koy joxe li arba biha ndax ci ana zakat nga xaar moo xaar léegi asaka téere yi jàngale ko dara leeru téere bi لما سحقها وعلم فليس له أن يفتر أن يفتر إذا لم يكن له بنفسه فإنه يدفعها لأربع بها sama war ko na jartang xasan de alhamdulillah gëm naa ko tey gaaw ma ko woon bu yàgg mais léegi gëm naa ko loxo lay jël ko tan duñ ko bokk sax yii da yomb ala da yàpp boo dimbali ma ne soo paree yi nit ñi nga sutur am dañ gën démb bu mois bi moom bu ñu doon def ak mois boobu moom c'est vraiment c'était intéressant amoon na fula quoi bu ko supprimer mais lii nii normalement xanaa booy dugg day ci ma dégg lii mu wax li xanaa boo nga supprimer tamit ñu droit rek wala képp supprimer tamit da ngay jaar ci corvée li arbaa bi xaa nan lañu waxee bénéfice rëpp xon la rëpp xon la waaw waaw li arbaa bi xaa ñeel en tout cas ñeel non waaw bokk baab bi ñeel la fa des waaw waaw la fa des alal ji yokku na bu baax a baax léegi sànku ci bis bi waaye ay fan après la sànku mooy ba nga ko war a génnee génnewuloo ko waaye nag léegi raximal bi bopp alal ji mooy sànku mooy yàqu mi ngi mel ne kii bu doon boutique la rek capital ba moom moo moom moom la moom moo yàqu moom moo moom moo sànku moo réer wala moo en tout cas ban façon yàqu mu yàqu quoi mais li fa des nekk bénéfice nga xam ni ginnaaw après ginnaaw nga ko am loolu ngay inventaire génn ci avec génn ci avec xam nga téere bi jàngalewul asaka kuy asaka asaka kuy asaka kuy jaay téere bi dé- démb jànguñu ko mais asaka asaka dañ koy limité ci trois ci trois kii rek daan ne asakay xaalis asakay jur ak asakay mbéy mais asaka daanaka benn bu nekk ak asakam ndax démb ni ñu ko jàngee woon xam nga asaka asakay boutique bu mu amul nisaab
asakay asakay boutique asakay kuy jaay non xaalis bi dañuy sax
inventaire ngay def xaalis yeeg produit yi kees gi kees gi produit yi yëpp li nga li affaire yi ngay lépp daal di daal daal daal di daal di daal di diviser certes moo ko azu azu keke noonu lañ ko processus boobu la ñu topp quoi mooy un vingt un un dizaine bi un vingt cinq bi un quarante cinq bi noonu waaye du tee bon waaw c'est très important daal produit yi fa nekk Yaay am fa un am fa un an da nga def seen inventaire bu bu amee un bu da nga da nga naan daaw ba ren rek commencé nga tey bis bi nga ubbi commencé jaay da nga koy noter bis boobu déwén normalement ci jour bi nga war a def inventaire daal di génne azaka bu fekkente ni diggante def nga yeneen inventaire nag 3 mois 6 mois am na dañuy loolu parce que suñu liggéey day am lu muy soxla day bëgg day am lu muy wala pour dundee ko pour yóbbu ay këram par exemple affaire yooyu wala dañu war a xam situation bitig bi est-ce que ça progresse est-ce que xam nga pour ba xam gën a accélérer njaay mi wala gën a bàyyi leble bi wala xam ba xam personne war nañ ko yokk ak yooyu war nañ changer affaire yooyu dans ce cas bu dee ay inventaire ci diggante bi mais inventaire yooyu da si génne azak inventaire bi nga xam ne si génne azak mooy bu daaw bi bi bi représenté at mi boobu rek si ngay génne azak hum
par exemple léegi soo ko ñu jël jour comme Exact, li nga exact.
wax at mi exactement jël at at mi ba at mi ñu Waaw.
jour boobu ñu def si inventaire Buñ ko def, waaw.
te dañuy nëpp dem Xo- xool kañ lañu disponible ak yooyu réseau bi suñu
li war a am rek moom lañ mën a xam li war a am moom li war a am moom mooy dis le 5 août ba le 5 août li war a am moo xam mois wolof nga jàpp wala mois tubaab en tout cas li war a am moom mooy at mi nga xam ne il s'arrange après que ñu trouvé un dimanche wala un jour no- war na nga xam ne jaay bi du bëri wala xaw ma lu ñu def le plus souvent moom loolu la gars yi def am na yoo xam ne le premier janvier pour lañu la ñuy inventé toujours am benn grand frère ñu ne- nekkoon Dakar le premier janvier duñ ko liggéey moom mooy benn jour duñ ko liggéey si at mi à- à à- à part dimanche tey chaque le premier janvier mooy seen jour bi ñuy te inventé jour bi ngay def inventaire Hmm.
dañoo war a jaay
da nga war a wala jaay wala war a jaay ah bon je sais pas am na yoo xamante ne seen inventaire jaay yu ko yàq du leen tere ci inventaire comme par exemple bu dee boutique la ñuy inventaire bu ñu egsee rek egsi nañ rek xam nañ pièces yi ñaata ma ko nekk produit yi dañuy commencé gauche jëm droite seen inventaire bi yàgg quoi gis naa quoi boutique quoi kii inventaire boo xamante ne nii kenn tëjee boutique bi ñu ngi jaay ñu ngi inventaire egsi na xam na ci kees bi lu kenn du jëndee après ap- ap- après li- bon li ñu jënd après du laal du du du du si inventaire bi quoi xam na ci kees bi ba pare fooy fooy fekk na fekk na boo mu commencé di jaay kiy jënd su dee bo su dee li muy jënd fekk na ñu cal ñu inventaire ko ba pare waaw ñu jaay dugal ci kees bi amul problème bu fekkee ne fekk na inventaire bi diñ ko di diñ ko jaay dugal ko ci kees bi dañ koy noter rek soit bi ñu leen di compter comme ça cinq cinq benn produit cinq cinq minutes yi ñu jë suñ fekk inventaire dafa egg egg gu fa mu tenir ko en compte rek mais ça dépend ci inventaire nag ko xam rek na bañ a bon na bañ a dugg si na ba- na ba- na bañ a yàq inventaire am daal mais loolu liggéey ñu inventaire ñoom ñoo ko gën a xam yow daa mel ni jaay ko daa mel ni daa mel ni daa- daa mel ni jaay- 31 janvier lañ ko war a def wala premier kii 31 décembre wala premier janvier
at lañ wax di date bi nga bi nga ubbee sa boutique chaque chaque année léegi kan comptabilité 31 janvier lañ 31 décembre lañ kii waaw loolu am Non.
na am na
léegi boo ko defee à minuit la vingt trois entre vingt trois et trente ba minuit cinq ba minuit trente dugg si yeneen kii
ah nekk ñaari ñaari yëpp ok
wa man maata ku dee na Mhm.
qabla ixraaji zakat yi lu njëkk muy génne azaka fekk matoon na at Mhm.
aw aw saa wala mu dénkaane woon bihaa ci moom mu ne sama alal ji joxal leen si diwul ni sa nangam fa innaha ko loolu kat tuuxal lañ koy jël min raasi maalihi ci bopp alal ja ci bopp alal ja lañ koy jël xam nga mooy avant at ma da ko a- a- a- le 5 août daaw tey la tey la dee tey la war a génne azaka lépp loo xamante ni waroon nañ ko lépp neewoon na nañ ko ko si defal dañ naan li mu amoon avant le 5 août daaw la diggante 5 août daaw ba 5 août ren duñ si jëlagum lenn ndax loolu ay alal jàmbur daf cee nekk dañ naan li mu amoon avant le 5 août daaw mooy 500000 yi mu fa nekk ñu dé déposé woon banque la ca doolee ko duñ ko laal moom ci 500000 ya lu mu ne nañ ko si joxe waaw dañ ko siy jéem a joxe dañ ko siy joxe mais parce que ñaari alal jàmbur ñoo fi nekk alalu miskin yi fuqaraa yi ñi ñooy jox asaka ak alalu way doon yi loolu la loolu la tax way sax bu sopp nañ nag ah fii sadaqati tatawwu ay ci saraxe coobare rek saraxe boo xamante ne ni moom da ngay may kii ne ak sirru la waaye wo parante asaka de waaye wa sarfu wa sarfuha soppi ko jox ko lil aqaaribi ñeel jële naar ya bu dee asaka xoolal ci gën a aajowoo fi yàlla wax xoolal faqiir bi nga njëkk a jox faqiir bi su su paree nga xool miskin yi su paree nga teg ci amil alayha su paree su paree teg ci mu àllif kulubum su paree teg ci xaab su paree sabilullah su paree ibnu sabil sëf naa benn sax sëf naa benn soka soka li fa paree mu tàggee noonu amil alayha mu àllif kulubum firqaab yi xaab yi ne sabilullah ibnu sabil ba mu bon dañu xeex léegi suivre ñooñu kenn par kenn bu fekkente ne asaka nag farax farax la nag du asaka nee na na nga njëkki ci la gën a jege bu dee sa rakk la nga dëkk nga leen nga dëkk sa papa moom ak sa yaay moom te da nga leen war a dundal ñu sarax warul la da nga war a jox par force nga may leen mu wër nga sarax leen am na différence wal jiiraan ak dëkkandoo ya wa tata akkaru nee na dana feddali ko nag moom sarax saraxu coobee si chef bi rama boo xam ne si weeru koor jeexul zakatu fitri la zakatu fitri la de waaw ma jeexal buntu zakat kas doon day teqale ay wax
bi bañ ko koy taba